léegi nag dama bëgg ñu ñëw li tax ma bëgg ñu ñëw mooy euh, li tax ma bëgg ñu ñëw ci combat yi nga xam ne moo nekk suñu kanam gaay diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux fii mu toll nii fii mu toll Gris Bordeaux xam ngeen ne bu bañee bari ak Ama Baldé guddi yi ñu toll effort information yi ñu ci jotagum ndax mooy li CNG wax Gris Bordeaux mën naa dem ba ñu aj ko ajaale fas gépp loolu dégg naa ko ci Gris Bordeaux dégg naa ne tey jii bu bañee ne du bëri Ama Baldé ci date bii ñu ko wax dégg naa ne cachet bi nga xam ne ni tey jii moom lañ ko fayoon li jëpp ëpp doole du koy indiwaat mais ndax loolu bu naree am Gris Bordeaux du jël date bi dem bëri ji ko fi may wax ak yéen nii estafu Gris Bordeaux woo nañ promoteur bi nga xam ne mooy Ibrahima Diop Kajoor production mais Ibrahima Diop daf leen a gàntal estafu Gris Bordeaux nañ ki nga xam ne nii tey jii mooy Ibrahima Diop Gris Bordeaux dem na këram ànd fa ak am pour waxtaan ak moom Ibrahima Diop di ko gàntal nekk ko date bii tëgg dootuma ci dootuma ci dootuma ci dootuma ci génn tëgg ko rek te jot nañ information ne Ibrahima Diop ndax sax bu seen di joxe validation bi ne euh, euh, Gris Bordeaux day bëre ak ki nga xam ne nii te jii mooy Ama Balde ndax date boobu dina fekk Ibrahima Diop. Ibrahima Diop yi nii nii nii dafa décidé te fi may wax ak nii Moustapha Gueye woo na Ibrahima Diop pour ñu dat ñu arrière combat ba mois de décembre. wala novembre wala er janvier mais Ibrahima Diop dafa né mom combat bi Gris Bordeaux daf may beurel wala mu delama sama xaliss wala ñaar li nga xamné moy information yu ma ci jot tugum mooy ñu arrière combat Ama de Modou Lô arrière combat Ama de Gris Bordeaux deug leen bax li ma la le 5 novembre moy combat Ama de Moudlou Ibrahima Diop mën a nangu pour ñu arrière combat Ama Baldé Gris Bordeaux ci point bi lañ ko tek point bii staffu Ibrahima Diop la leen wax de li ma leen wax dañ ko bàyyi xel bu baax staffu Ibrahima Diop né lañu pour ñu arrière combat Ama Baldé Gris Bordeaux mooy ñu arrière combat Ama Baldé Modou Lo ba premier janvier le 5 novembre bobu nga xam ni ci mois de novembre wala 1er novembre ñu jël combat Ama Baldé Gris Bordeaux ko ci mois boobu loolu staff Ibrahima Diop bi nga xam ne ñooy Kajoor production loolu lañ proposé gum nañ loolu bu mënta am Ama Baldé Gris dañuy bëri par force muy lu compliqué nag lu compliqué la gaa yi wax noonu mooy léegi Nicolas Enko mi nga xam ne ni tey jii moo tëgg Ama de Modou CNG dañ koy woné ko réglagé won nga le 5 novembre dañuy génne date bi arrière ko ca kaw le 1er janvier ñu def ko bu diggante Ama Baldé ta ma ngi jàpp information bo xamné ni moy ki nga xamné moy mooy Makan Meng mu ngi bëgg combat Ama mu ngi bëgg combat Modou Boyñang le 1er janvier. kon tey jii foofu calcul bu doy waar dafay am calcul bu méttee méttee méttee méttee dafay am. lakkin bu métti métti métti day am foofu kon gars yi Ibrahima Diop guddi yi toll ndax woote waxtaan du ko gën a arrangé ci benn côté mooy bu waxtaan amee CNG bi ñëw décidé Gris Bordeaux li estafam wax ñoom Amadou Kati Diop dégg ngeen ko Amadou Kati Diop bi nga xam ne mooy entraînement bi nga xam ne mooy entraîné Gris Bordeaux da ne Gris Bordeaux jege na 40 ans. mënta préparé Ama Baldé ci mbër mu mel ni Ama Baldé ki deux mois bu fekkee ne Gris Bordeaux xale la dañ mën a enchaîner entraînement yu bëree bëri bëri ci yaramam mais tey jii bu fekkee ne entraînement yi li muy laaj dëgg dëgg dëgg dëgg charge yooyu bu ñu ko tegee ci kaw Gris Bordeaux fekk combat ba mën na koo daal ndax waa yaram bi dañuy ragal mu claqué ndax Gris Bordeaux bi préparé waat Ama Baldé war naa am datu 4 mois boo xam ne day commencé waat à zéro ñu dindi graisse gi nekk ci yaramam. commencé ko physique loo commencé ko indiwaat ndax Fass dañoo fonk combat bi man Fass lan moo nekk ci Ama Baldé boo Fass bëgg daan Ama Baldé loolu daf ma jaaxal lan moo nekk ci Ama Baldé boo Fass bëgg daan Ama Baldé ndax pexe yi ñuy teg yëpp pour daan Ama Baldé la ndax dañoo gis ci Ama Baldé ay faa yu tax yu ko mën a daal ndax Fass combat ak Ama Baldé dafa dem ba ci biir bëgg leen bëgg leen ñu am luñ ci gis loo ne daf leen a jaral loolu tamit lu ma jaaxal kan la ndax waa Fass dañoo fonk combat bi dañ ko fonk lool lool lool lool lool waaye tey jii li ci am solo ba am solo mooy Bira Sène la ñuy xaar Bira Sène mu ngi ci compétition bi nga xam ne nii ànd ak xale yi nga xam ne tey jii ñoo nekk équipe nationale bi ñu ngi doon dem ci ba am nañu yaakaar na dinañ ñëw ci semaine bii semaine bii bu ñëwee bu fekkee ne waa fas dañoo ñëw taxaw ne dañuy ñaan pour CNG mën a régler combat bi pour mu mën koo régler laa leen wax. ñaar mooy mën am Gris Bordeaux day bëri Ibrahima Diop datu deux mois bi mu am Gris Bordeaux bëri Ibrahima Diop datu deux mois bi mu am wala CNG proposition bi nga xam ne nii moom la staffu Ibrahima Diop ko jël production teg mooy tama jot information yooyu mooy ñu arrière combat Ama Baldé Modou Lô yóbbu ko premier janvier wala ñu yóbbu ko le cinq vingt cinq décembre ni arrière tout du combat a Diop bi nga xam ne nii mooy diggante Ama Baldé Gris Bordeaux ndax tey jii loolu Modou Lo le roi des arènes dina ko nangu ndax tey jii loolu Luc Nicolaï ko mi nga xam ne nii régla Luc Nicolaï mi nga xam ne régularisé ba pare ndax dina ko nangu ndax tey jii Ibrahima Diop digganteem ak Gris Bordeaux ak digganteem ak waa CNG dañoo gis ne CNG li Ibrahima Diop couvrir woon ñaari avance yi ci diggante Ama Baldé Gris Bordeaux yóbbu woon ko ca CNG ba dafa am lu bari lu fa am te looloo tax mu am na ngeen ko bàyyi xel nag bu baax Ibrahima Diop daal jëloon ay avance Ama Baldé ak avance Gris Bordeaux jox ko njàmme njàmme moo ko moo jox ménagère Gris Bordeaux jox ménagère Ama Baldé kon looloo tax waa CNG bëgg couvrir Ibrahima Diop. waaye fi làmb di dem fii làmb ji di jëm combat boo xam ne ni tey bu ci ay mag génnut waxtaan mën naa yàq lu bari ci làmb combat boo xam ne ci ay mag génnut waxtaan ndax sax li ma ciy dégg mooy bu waa Fass na bu tëbale dañuy aj ikiri Fass dañuy aj ikiri Fass jot naa ay formation boobu ndax duñ ci aj ikiri Fass ndax ikiri Fass bu leen fàttali dafa am ay avenir yu fa nekk seen Ndiaye numéro de mu nga fa Lac Rose jël na combat ak Fils de Balla Gris nga fa Pam Ndoye nga fa ak yeneen génération yi fa nekk yoo du jeex kon lii dafa jar toog waxtaan ñi ciy négocier nag bari na trop liñ ciy négocier bari na trop liñ ciy négocier bari na trop trop trop trop mais làmb day toll foo xam ne nii làmb day toll foo xam ne nii day am loo xam il faut ñu dox ko guddi. bu fekkee ne promoteur bi di Ibrahima Diop gàntal na ko mbër mi ak ménagère am muy Gris Bordeaux gàntal ko Moustapha Gueye kon ñan ñoo ci war a tànku jàmm ndax CNG du woolu Ibrahima Diop promoteur bi woolu Gris Bordeaux woolu Ama Baldé woo seeni ménagère woo Luc Nicolaï ne ko pour bés bii mën a sauvé wu nga mën a nekk ci sa bés ndax Ibrahima Diop mënta def promotion am Luc Nicolaï bëgg def promotion am mënta ne ndax Luc Nicolaï day tëgg le vingt cinq décembre le le le cinq novembre diggante Ama Baldé Modou Lô ndax da ciy dëgër bopp dama koy taxawal damay bëri loo sama ñaari mbër génn ci loolu tamit lu doy waaran ci moo tax combat yu yéeme la combat yu yéeme la combat yu tar la ndax fii la làmb toll fii la làmb toll ndax làmb day toll foo xam nii kalkin da ci am magu làmb yu bari nag ñun nii ñuy waxee ci làmb du leen arrangé ndax ñoom dañuy bëgg en général làmb li ko gën a tàrrel mooy négociation bu bari wax ci suuf boo génnee ci kaw wax leneen ñu doxewuñ ñoonu làmb lépp lu ci jaar yoon dañ koy wax li tax ñu koy wax mooy loolu mooy intére làmb mais daal li jotagum tamit information yu leer ci diggante côté Ibrahima Diop bi na ko ñëpp bàyyi xel Ibrahima Diop lim teggum ci table ji lim teggum ci table ji te loolu na ñu ngi ciy xaar fusion bi nga xam ne nii diggante Baye Ndiaye ak li Nicolas Enko diggante Baye Ndiaye ak li ñoom information yi ñu jot foofu mooy tey jii ñoom ñoo war a bokk yenn promotion yi war a def ci diggante Eumeu Sène Tapha Tine Ama Baldé Modou Lô fusion boobu noonu. ñoom seen programme loolu la Ama Baldé Modou Lô Eumeu Sène ñooy bokk benn promotion ndax promotion boobu ñuy bokkul li Ibrahima Diop bëgg mooy ñu dellu si waat ci kaw Ibrahima Diop ñaar yi rek ay tax ñu bàyyi. Gris Bordeaux ñëw na du ma nangoo dat boobu indaale xaalis bi ko Ibrahima Diop joxoon benn ñaar te loolu bu amee ndax ñu duñu duñu duñu duñu aj écurie Fass ndax seen réew booba du aj écurie Fass Fass nag écurie bu mag la waaye te jii ñu ngi xaar ten xalaat ndax promoteur bi bañal na ko Moustapha Gueye bañ ko Gris Bordeaux ak ménagère am deuxième tour bi li ci am mooy pour Ibrahima Diop mën a nangul Gris Bordeaux ak Moustapha Gueye li ñu bëgg déglu leen baax li ma leen wax il faut diggante Modou Lo Ama Baldé bi nga xam ne la 5 novembre la ñu arrière ko ba mois de décembre léegi boobaa combat Ama Baldé Gris Bordeaux dinañ ko mën a arriéraat un mois muy trois mois de préparation loolu nag lu yéeme la ñu ngi ciy xaar Bira Sène mi nga xam ne muy jiitu làmb Ibrahima Diop fi mu taxaw dafa garaaw waaye nag làmb daa bëri pexe. waaye arrière lamb yooyu ndax makan meng dina ko nangu ndax moom ceddo la gis naa makan génne affiche u Modou Lo Boy maa ngi fort ci wéewu bay makan ndax bëggul diggante Modou Lo Boy Niang le premier janvier ndax janvier bi am nañu ko ñemee laal ndax makan meng foofu tamit ndax makan euh, mën nañoo wax ne kuy wër ceddo asib enfer ma makan meng la moom jàmm la ci bëgg muy nii nag moom lu ma jaaxal la fii làmb tollu lu mu gën a gaaw gën a gaaw gën a gaaw nañu woo ñi nga xam ne ñooy concerné yi ñu ñëw woo Nicolas mu toog woo mu Diop mu toog woo Ama Balde woo woo woo ndax li Nicolas dina nangoo arrière tatam bi mu am le 5 novembre loolu tamit la loolu loolu ndax affaire dafa jaxasoo xam nga dafa doon bëgg coow waaye coow li dafa ëpp doole dafa bëgg coow mais ma commencé ëpp doole waaw doon bëgg bëgg lu coow rek coow li commencé na ma ëpp doole mais ñu ngi ñaanal nañ ñëpp jàmm ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm làmb coow yàgg na ci làmb coow yàgg na ci cioro koy gëna neexal rek yépp cioro la waaye lépp lu ci mënti am daal na mbëri sëgg bëri waaw na mbëri sëgg bëri waaw Ama balde mën naa bëri ci distance un mois loolu du problème man ci sama xalaat man fi may tiitalee ñaari promoteur yi rek mooy promotion wu làmb ja nan lañ ko war a doxalee mais bu dee Ama balde rek ma tiituma ko ci Gris Bordeaux nag la estafam wax benn côté mën nañ ko nangu benn côté mën nañ ko bañ a nangu ndax nee nañ Gris Bordeaux mënta préparer Ama Baldé ci deux mois ndax préparation Ama Baldé bokkut ak la Gris Bordeaux préparé woon contre Balla Gaye numéro 2 dafa desoon te faa yooyu manqué woon foofu dañ ko bëgg dem outil ji pour am ko pour mun ko indaale contre Ama Baldé kon Fass fonk nañ combat bi waaye damaa dégg démb Omez wax lu am solo tamit nee na ci vingt cinq jours euh, euh, euh, un mois vingt cinq jours athlète mën na cee pare pare. xaw ma 25 jours la wax mais ndax athlète boobu ñuy wax tamit du nekk xale boo xam ne nii tey jii tollu toll ci 25 ans jàpp 30 ans ñu ko su abbee foofu loolu dinañ ci leeral kon tey lépp lu ci am solo bu solo rek mooy daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñaanal ñëpp sutura ñaanal ñëpp xewul di leen wax rek ne daal lépp lu ci mënti am ñun daal leen rek lañ ci bëgg mooy na mbëri bëre cool yi nag mën di toll bëgg nañ ko ragaluñ coow loolu waaye liñ ci bëgg daal mooy na sénégalais yi gis Ama Baldé ci biir géew gis Gris Bordeaux ci biir géew wala ñu gis Ama Baldé modlo. Lô ñun daal li ci bañ mooy ñu làmb ñàkk bañaam mais lépp lu ci mënti am daal ñëw ci information ci falayam. dinañ ko partager yéen mu nekk loo xam ne nii tey jii làmb ñëpp koy xaar mag fa la fa la bu seen ñu ci ñu ngi ci wàccaay bu mag loolu dinañ ci ñëw ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan a sutura di ñaan ci réew mi jàmm yàlla na ko yàlla defal ñëpp ci barke Serigne Babacar si yàlla na yàlla delloo réew mi jàmm ah def ci xéwal yu bari ah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu xool amateur yi jërë ngeen jëf ngeen jëf jërë ngeen jëf